bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsani ila rabbi ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi ñu ngi leen ziar di leen nuyu di leen dalalaat seen plateau jotaay alquran ñu koy amal chaque vendredi waaye koor gi tamit ñu koy amal fii ci Dakar Buzz lakk ci Dakar jotaayu koor comme jotaay alquran la woon Euh, bii passé nag ñu ngi doon waxtaan ci liy yàqu koor ak luy defar koor ak yu ni mel noon tey émission bi ñu jagleel ko ngëneel yi nga xamante ni bii moo am ci weeru koor parce que day baax bu fekkente ne da woor am na loo ciy xaar même bu fekkee fay àjjana sax wala am ay ngëneel yoo xamante ni yàlla suñu borom baaxee la ko yooyu war nañ ci waxtaane ànd seeg euh, Mohamed Bachir ak Asiyatu Seyda Xafsa mi moo ñu ubbil alquran chaque jour ñu bàyyi ko mu ubbil ñu alquran incha allah après ñu dem ci présentation yi. tafaddali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ۖ ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم macha allah iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba yal nañ yàlla boole ci ñi nga xamante ni bii buñ leen joxee seen ëllëg seen alquran wala seen téere dinañ ko mën a téere dinañ ko mën a jàng duñ rus allah yàlla def ñu jëlee ko suñ loxo ndeyjoor incha allah Cheikh Bachir lan ngay nuyoo. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala mustafa nabiyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mbokk yi ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen ziyaar bu baax di leen jaajëfal ci ñaareelu émission bii ngeen ñu invité ci ci jotaayu koor pour jéem a jàppalanteeg mbokk yi yenn ci ay masala yoo xam ni dañuy faral di gaar rawatina lu jëm ci ay ngëneelu koor ak yu ñu mel di kontaan bu baax ci émission bi di ñaan yàlla lépp luñ fi wax yàlla na doon luy defar bu naree yàq yàlla bu mu géddu suñuy kàddu di jaajëfal Seyda Hafsa ci alxuraan gi mu tijjee xam ni ci weer wi ñu nekk la wàcc kon barkeb alxuraan yàlla na ko yàlla def ci réew mi def ko ci mboolem jullit incha allah. soxna Asi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di kontaan tamit di leen dalalaat seen émission bii di jotaayu alxuraan di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah kii moom daa mel nuyoo na ba pare moom alxuraan yi moo nekk nuyoo macha allah mm. léegi bu ko defee dañuy ñëw ci rapidement ci émission bi waxtaanee ngëneelu koor. ak yan yan jagle la yàlla maanaam yan réservation la yàlla def ci weeru koor pour ki nga xamante ni bi day woor ndax kuy woor baax na nga war a xam lan moo la ci man a fekk ëllëg mm-hmm. lan la ci yàlla defal ak ci biir weeru koor gi ndax dafa am ay ngëneel ndax am na mm-hmm. ñu dul woor léegi kii woor yan ngëneel la ko yàlla war a defal ndax ngëneel yooyu dafa am ñu digg doom wala dafa am ñu ku nekk li nga jagleel la genre yooyu mm-hmm. maanaa koor moom ngëneel gi weesuwul yonent bi sallallahu man saama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbi nee képp ku woor weeru koor gëm yàlla rek tax ak saaku tiyaaba yàlla jégale say bàkkaar at wees kon woor weeru koor day far bàkkaar at wees mboolem jumte yoo defoon kon yàlla nañ ko yàlla defal beneen bi mooy am na benn xadis bi wax asiyaamu wa ramadaan wal asiyaamu wal quraan yashfaani yowma alqiyaama mhm. maanaam koor ak alquran dañuy tunu ëllëg kon yàlla nañu tinu maanaam nga woor koor day ñëw ne ëllëg wax dëgg fa yàlla kii maa ko tere woon lekk tere ko naan tere ko bànneex kon man maa koy tinu mm-hmm. kazaalika alxuraan tamit ñëw ne kii maa tax muy naafila di taxaw ba pare di ma jàng yu mel noonu man maa koy tinu kon ñoo ñaar ñëpp dañ lay tinu kon woor weeru koor dangaa jëfe ndigal bu la borom bi sant ndax doo ko faltaal ci yow kazaalika tam diñ ci am tiyaaba goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na képp ku woor weeru koor gëm yàlla rek tax ak saako tiyaaba yàlla jéggal sa bàkkaari wees kon am na ay ngëneel yu ama am solo moo xam ci biir koor gi moo xam biti koor gi kon daal koor wax dëgg fi yàlla lépp bénéfice la ci ki nga xam ni amul benn gàllankoor mu def ko na ko def su ko defee dina am ñu jégal ko atu bàkkaar goo xam ne defoon na ko ci addu yu wees kazalika nag koor mën na koo tinu ëllëg kon loolu lu mat a bàyyi xel la ndax ëllëg dinañ soxla ku ñu ràmm kazalika dinañ soxla tamit ñu jégal suñuy bàkkaar ndax nit buñ ko jékkëree ay bàkkaaram lay mën a am ak texe àdduna ak àllaaxira yàlla nañ ko yàlla defal. waaw ñu gis ni weeru koor tey jii nii ñu bari danga leen di gis macha allah ñuy naafila di jaamu yàlla comprendre nga euh, ndax yooyu noonu euh, loo xamante ni bii luñ luñ daganal la ci weeru koor wala ay aada la wala genre yooyu noonu beneen bi sees mooy yooyu noonu même bu dee jaamu yàlla sax am na yoo xamante ni dañ ciy def yu ëpp maanaam comme ni alxuraan wax wala taxlu fi diinikum bu leen teengal bu leen ëppal ci seen diine am na yoo xamante ni dañ ciy def yoo xamante ni bii. xamuñu ko woon mooy conférence yeeg mhm. genre yooyu noonu yooyu ban jàngat nga ci am. Mhm. maanaa lu jëm ci naafila naafila moom wax dëgg fi àlla dafa am solo même bu koor sa julit bi war na di ko def ndax li ñuy dellu waxaat rek xadisu man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min danbi maanaam képp ku taxaw naafila koor gëm yàlla rek ta ak saaku tiyaaba mhm. yàlla jéggal say bàkkaar at yu wees maanaam yu mel nii ci genre circonstance yi nga ko mën amee te tënkuñ ci kenn lii ngay naafala waaye tënkuñ ci kenn ba da nga ne da ciy def lu la neex tënkuñ ci kenn ndax yonent bi sallallahu alayhi mas naa mas naa la wax ñaar ñaar soo rëgalee ni fajar mu ngi jot nga huit heures tëj mais bu la neexee nag fajar bu jotagul mën nga naafila miir raaka loolu yoonu kenn newu ci tënkuñ ci kenn waaye nag bu dee ci penc ba yonent bi li mu defoon mooy julli juróom-ñetti raak ak safa huit heures muy onze am na ñu ne def na treize waaye li gën a siw mooy onze raak ak ñett yi nga xam ne mooy safa ak huit boo boo ragalee nag fajar jot bu dee da nekk sa kër nga ragal fajar léegi mu jot na nga tëj tinkuwuñ ci kenn nag nga mën a joxe ay naafila naan tey naafila bi bis bi lii la naafila dix jours la loolu moom jours lu tax man ma gëm ni dafa xorom tey buñ ñëwee ne la naafila dix jours quinze xul wala axat nga war tari yow au nga concentré ci julli mais ngay concentré wu ci nombre de xul wala ndax du jum am naa dix ma maa ngi ci cinq yow ci loolu ngay concentré sa durant sa julli te julli dafa laaj concentration te sa concentre sa concentration boobu noonu ba nga ko ci yaa ngi nekk ci xul wallaahu ahad yeeg ci tabbat yadaa yeeg izaa jaa mhm. maanaam laa yukallifu llaahu nafsan illa wusaha laa yukallifu llaahu nafsan illa ma ataha yàlla tegul benn bakkan lu mu mënul te gisa maanaa yonent bi nee na nañ def lii def ko dalaa noppal ndax sunna moom mbaa sonn rek gise boo dund sunna di nga sonal sa bopp ci ay lënt di nga sonal si bopp sa loo xam ne nit moo ko teg naan la boo ko defee am li loolu nekkul lu wér ci diine boo defee li am li loolu yàllaa koy wax ak yonentam mais du benn kilifa diine wala du benn koo xam ne masa masaayib arbala ñooy ñëw naan ku def lii jaamu yàlla bi am lii déedéet récompense yàllaa xam ko noo koy amee moom moo naan lii boo ko defee lii mooy payoor gi lii boo ko defee lii mooy ndaan gi non yàqu sa ko maanaam jëmmi naa fi la mhm. maanaam ñàkk ju liggéey sax yàqul kooru nit ñàkk ju liggéey da am bàkkaar rek mais ki naafil ak ki naafilu amul différence ci. Mhm. lenn lañu wutale kii dafa am ñu jégal ko bàkkaaram at wees kon yemul kii. Mhm. Mhm. ba pare dafa am ngëneel yoo xam ne kii amu ko kon naafila jotewul dara sa koor. waaye dafa nekk ay bonus yoo xam ne comme bonus bonus rek. Mhm. ngay liggéey ñu ne la heure supplémentaire heure bi société bi 16h la ñuy wàcc. Mhm. ñu ne la boo liggéey ba 18h di nga am loo xam ne ku wàcc 16h mënoo leen yem. Mhm. kon loolu jotewulaa boo arrêté woon tamit teewu ñu ne dañ lay dàq. ndax liggéey nga heure normale kon naafi la heure supplémentaire la bonus la comme orange ni mu koy defee ak Tigo. ak Expresso ak sëñ Mbacke yu fay yi. kon ñu bàyyi xel bu baax. macha allah bu dee nañ question yi ñuy laajte ñu laajte ko. léegi oustaz ñun dañuy gis heure naafila yi mooy heure bi nga xamante ne moom naa fi naafila jigéen ñi dañuy fees ci jàkka ji bu baax a baax may laajte ndax loolu lu ñu cible wala parce que temps aada jigéen daanul dugg si jàkka surtout ngay booleek jigéen ak góor ci biir jàkka waa mhm. xaw na maa maanaam lu jëm ci wàllum jigéen julee ci jàkka wax dëgg fa yàlla am na ay wax yu ci am ba ci soxaaba yi seen biir. suma juum Abdullah ibn Omar ak kan la woon fàtte naa ko ndax xadis ba ma koy jàng yàgg na lool mm-hmm. am na wute seen biir ñenn ñu indi xadis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne laa tamna'u ima allahi masajid allahi mm-hmm. maanaam bu leen tere jiibéru yàlla ñu jullee ci jàkka yàlla yi mm-hmm. comme jigéen ñi bu leen ko tere daal warul am ak tere waaye nag Abdullah ibn Omar nee na yonent bi nee na wa buyutu hunna xayrun la hunna wa masakinu hunna ay afdal maanaam ñu jullee seen kër yi moo gën ñu jullee seen kër moo gën ci julleef waaye bu ñu ñëwee ci jàkka yi nag laa maana mm-hmm. maanaam li tax ñëw ci jàkka ji des fois mu am rawatina jamono ji mm-hmm. jigéen ñi lépp luñ dugg dañ ciy rax mm-hmm. ñoom seen dara simple duñ ba dara dara so lu ñu mën a dugal seen porox ndoll rek dinañ ci ay maquillage ak di wër koo xam ni koo noboon ay at benn xale amaar nga noboon ay at moom jàkka ji ngay mu jaral la manière dugal la ci ji des fois nga sol yére yi sew nda yoo xam ni ku nit ñi toll di la gis yu mel noonu mën na mën na indi ay fitna ci jàkka ji maanaam nga sol wala des fois sax ñu laal parfum te loolu daganul mhm. bu ko defee mën nga sax fitnal imam bi yooyu jekkuwul jaarul ci ab jigéenu jullit boo demee ba ay fitna ak ay circonstance wala ay mbir yoo xam ne da nga koy gàllankoor góor yi mu nekk ak natt nga toog sa kër moo gën mhm. waaye bu nekkee nag mën na ñaa mën yooyu amul mhm. wax dëgg fa yàlla ji góor yi sax gisuñu leen te yéen tamit gisoo leen boo julee si jàkka ji ka daalika dara neewu ci waaw dara neewu ci daal mais fa yàlla jigéen dafa doy waar lool ndax loolu moom yonent bi bokk na ci dénkaanim doon dénkaane ci jigéen ci ba mu mujjee génn àdduna Mhm. di ko wax naan àddunaa ngi nii dafa neex loolu na tax bëri ay bànneex mhm. yéen doomu aadama yi yàlla moo leen fi teg ngir mhm. xool lan ngeen fiy jëf ragal leen àdduna te ragal jigéen ndax fitna bi njëkk ci banu Israël ci jigéen la bàyyi ko ragal àdduna mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi moo tax ndiku jigéen nag mooy nga téye say cër sàmm sa gët yaakaar naa Sénégal am nañ confirmation ni jigéen fitna kase la ci am na benn xale bu jigéen ci entre politiciens yi ñu tuumal nit ba quatorze góor dee ci kon a dee jigéen Mhm. buñ nit ñuy éviter di fitnaal góor yi am na ñu baax lool mhm. rawatina tamit <laughs> rawatina jigéen ñi <laughs> jigéen ñi dem ci naafile yi mhm. nañu éviter des fois dañuy sàggan ci seen xeetu kol yi dañuy gis koo xam ne kol boo xam ne fii lay yem jigéen fii ak comme ñii fi mu yem seen loxo yi nii fii sama bos bi nii nii fii la war a yem mais kol yi yem fii loolu julleegul kazaalika sa kawar di feeñ julleegoo ak say tànk maanaam jigéen bu da ngay nëbb say awra ba mu daj soo ko dem takkaay pour julli mais jël kol yu daggit yoo xam ni sooy rukoon naan ni di boo yoore di kii wa jigéen ñi noonu lay mhm. ne dafay métti na da bi des fois nga xëcc mhm. yooyu wax dëgg fi yàlla sonn sa bopp la jilbaab méttéwul jasneer yi ñoo gën a seer mhm. benn jasneer mu ngi si am fukki jilbaab yoo xam ne moom ngay jullee te du la wàññi dara kon nañ wala ximaar kon ñu bàyyi ci xel kon yu mel nii day gaar jigéen ñi te nekkul loo xam ne lu jaadu la te julli suba ba ngoon di këpp këppal fekk da nga doon entraînement dara da koo jarul ñu bàyyi ci xel baax macha allah oustaz oustaz mam moom euh, kii bu ma lay laaj question bi ma lay laaj bi hmm. ñuy faral di gis ci weeru ci weeru koor gi conférence yi day bëri hmm. par commencer nag par sama mbokku jigéen ñi bu ñuy dem si conférence yi dañuy sañse tagal xam nga sañse daal maquillage xam nga du ñu bàyyi dara pose xef du ñu bàyyi dara xam nga yow man nag je me dis nga ne da ngay jëm ci diine ah lan la ci ay pose ongle di def ay sil maquillage yu ba mel ni sumb gaynde dem nga ne yaay yooyu da nga dem pour ñu pour jële fa diine question boobu laa amoon. conférence yi de wax dëgg fa boo xam ne ku nekk rek da indi sa marchandise pour exposer ko. maanaam marché la rek ku nekk da indi sa kii xool sa naka ngay defee sa marketing. Mhm. ndax am na jigéen ñoo xam dañoo lam. ngeen baal ma ci kàddu yi dañuy mhm. bëgg a jar. Mhm. moo tax dañuy peinture seen kanam monter ay xef monter ay we mel ni rab. Mhm. des fois boole ci ay mbir yoo xam ne ay biling biling ak salañ salañ mhm. am na góor yoo xam ne kasaalika kenn nobbu leen sama classe gii mhm. ñoom tamit dañuy bëgg bu defee ñoom ñu jéem a parfum bu ñu mën a wut bu dul parfum jinne dinañ ko wut yére bu fës bu wul pour nit ñi gis rek mhm. nga def ko yooyu nag wax dëgg fa nekkul jubluwaay bi mhm. maanaam ay muhaadara li ko waraloon rek mooy jéem a yee nit ñi jéem a mhm. conscientiser nit ñi jéem leen xamal seen diine te rawatina ci weeru koor yu mel noonu da ciy am solo jotaayu diine ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na julli di fépp fi ñu di waxtaanee diine rek duñ fa jug lu dul maraaka yërmande yi dañ fay wàcc di leen ñaanal yërmande ba pare dañuy am ak dal kon loolu lañ fa war a sàkk waaye waruñ faa sàkku ay pour ñu lay doxaa nag wala nga fay sarme xale jigéen di fa mhm. nekk di manièroo ko ragajee ko tell mhm. tell fu ne nga dugg fa des fois ñu jël sa téléphone des fois gis góor yi bëri tiiti réewam chaque instant jug wuyu jugaat ñëw yooyu amul benn sens ay caaxaan na rek des fois nga xale bu jigéen boo xam da lay séen sax woo la doyow la dara e ni diwee man moom liñ ma koy def daa bëri léegi <laughs> koo xam doyow la ay eh, sang newee pour ñëpp gis rek nga gis caka caka caka caka ñëwaat yooyu amul benn sens wax dëgg fa yàlla dëgg la <laughs> kon yooyu nañ ko di wattandiku. conférence yi jubluwaay bi rek mooy jéem a jàngalante diine. Mhm. ak dundu mbégteeg weeru koor yaakaar naa loolooy jubluwaay bi. kon dina jaar ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. macha allah oustaz sant bi am na conférence sax man benn association Nabiyeen invité nañu ma benn conférence le huit cité Aline Sow incha allah seen conférence boobu xam ne xumbuta dagan. Mhm. maire dañuy def seen hôtesse. macha <laughs> association Nabiyeen yi. Mhm. ñoom nii tamit sangu néew tamit invité na benn conférence waale bu incha allah benn at faal tamit am na conférence waaye nag ñun suñ conférence yi nii bokkut yéen weeru koor weeru koor ngeen conférence mhm. suñ conférence yi ay conférence macha allah la waaw mhm. mi ngi noonu mhm. en tout cas am na solo am na njëriñ lool contribution bi ma ciy def rek mooy ñi nga xamante ni bii wax dëgg yàlla dañuy jël diine ji jàpp na ci weeru koor kese lañ war a naafila ba pare ñu bëree bëree bëri xamuñu ñu ni pour ñoom buñ naafiloolu naafila day yàq koor ñoom yaakaar nañ ñi ñoom ñàkk a day yàq koor am caaxaan weesuur nga bàyyi farata fëre di ko concentré wu ci naafila ni naafila day yàq sa koor yow julli farata yi nga xamante ni bi yonent bi moo ni awwalu maa yuxaasabu bihi al-abdu a qiyaamati as-salaa mhm. julli googu nga xam ne moom lañ lay njëkk a laaj keroog yawmal qiyaam farata moo ci ëpp importance hmm? donte ni naafila am na solo lool hmm, allah euh, donc euh, li doon wax maam hmm, euh, beneen question waaw. waa kii kii nii oustaz dafa amoon benn question bu ma lay laaj. ngeeneelu teel a dog. mu bëggoon nga leeralal a dog moom waaw teel dog moom am na solo ci xadisu anas ibnu malik mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi bi xayrin maa ta'ajjalul fitr mm-hmm. nee ñi duñ del ci denc yiw ñu ngi teel a di dog mm-hmm. loolu la ñun li ñuy faral di gaañ ñun maanaam dañoo ñàkk diine ñàkk organisation ñun ñuy dog boo waayee TFM laay xaar wala seen TV boo dogee sax ñu ne yow doo xaar ba TFM dog waaw Muslim Pro nag képp ku bëgg di am heure normale Muslim Pro wala Mawaqit Mhm. heure normale la lay jox muy xam du dog kase mais heure julli yëpp yu mel noonu baax na ci sukkandikukaay mhm. mais des fois foo yi ñu taf si jàkka yooyu heure yi sax day tardé wala heure bi passe heure julli yi daal man li ma gëstu te li ma dégg sa mhm. Alioune Sall dégg naa mu wax ko beneen cheikh tamit wax na ko nee na église jóge benn maire moo ko daan joxe wax dëgg fi te loolu def nañ ci ay gëstu yoo xam ne mhm. euh, këyit yi ñuy taf si jàkka yi defoon nañ benn congrès xaw ma am mille huit cent ñaata mhm. sa benn oustaz wax na plus de quatre cent imam dajee nañ fa mhm. munuñ laa fi la këyiti julli yi di jóge ci réew jullit yoo xam ni yéen yéen yor seen diine ñu leen di jox ay seeni i programme julli jant bi waaw loolu la islam wax min tuluu il fajr ila xurubi maanaa jant bi fenkagul des na ba léegi bul fenkaloo jant saa borom yàlla bi jant bi des na maanaa loolu nag bu njëkk suñu mag yi ñoo ko daan xam mhm. ñoo la daan mën a wax heure ci te montre amul woon ne la njoorool day fekk naaj bi day tolloog yow tàkkusaan day fekk mu tolloog sa tàkkandeer mhm. suba boo gisee cay kii géey commencé génn weex weexi yu mel noonu di la ko expliquer mhm. yow da dem ba xam heure yi Mhm. mais kon ñu nag léegi ak réewu taax bi ñu nekk. Mhm. pour ñu xam ko day jafe waaye nag am nañ li ñu ko yombal mooy application yi. comme Muslim pour ay mawaqit yooyu dinañ ko yombal. Mhm. kon teel a dog dafa am solo ñu éviter tamit. di bu ñuy waar a dog di seetaan ay sketch ba yéex a dog. xam ñoom dañuy topp sketch yi ba fàttee dog sketch rek ku amul benn njëriñ kii gisee li lay wan ñun dañoo tardé ci xel. Mhm. mooy kii gisee sketch yi moom avant koor la ko si. yow da toog di ko suivre moom moom mu dem toog di naan rabbana waxtu waxtu goo xam ni saa borom yonent bi nee lépp lu fa waay ñaan yàlla yàlla doo koy nam mhm. kon nañ profité ci ñaan. Mhm. moo gën ñuy topp sketch yoo xam ne da dem ba fàtte dog wala nga yéex a dog mu dugal la ci loo xam ne yaa ngi mooy wala yaa ngi bañ a jëfe sunna kon yooyu yu mat a bàyyi xel. macha allah oustaz euh, kii nuñ koy waxee amoon naa beneen question mhm. aussi parce que damay gis euh, ñun fii ñu bëri dañuy faral di jël euh, dañuy faral di jël benn ñaan bu nga xamante ne bu ñuy dog ñun ñëpp moom la ñuy wax muy allahumma laka sumtu wa bika amantu ñu wala risqika ñu bari moom la ñuy dogee te dama dégg ci ay ñeneen ñu naan boobu wérul léegi nag mu bëggoon mhm. mu leeral ñu ci loolu waaw allahumma laka sumtu wa bika amantu wala lista aftaxtu faghfir li ma qaddamtu wa a mm. waa ji naan bismillah jot doñu ci Ndakaar ak li ko wër yàgg nañ koo ba ñuy xale ba léegi <laughs> mm-hmm. bi ci boo tëggee ci olof wér na mhm. maanaam bu jaar yoon la mhm. mais dañoo wax ni du waxu yonent bi salaay salaam maanaam salaay salaam wax ko loolu rek lañ ci wax waxuñ ñi bu ko kenn wax mais mhm. maanaam bi moom boo ko nattee wax dëgg fi yàlla wér na jaar na yoon ak niñ ko jubale mais nekkul loo xam ne yonent bi salaay salaam moo ko wax yonent bi boo dogee ba lekk tàndarma naan ndox li mu wax mooy zahaba zamu wabtalatil uruq wa thabatil ajr insha allah lii la wax nit ki moom lañ recommandé si boo dogee ba pare nga koy def mais ñenn ñi ne dañuy faral des fois mel ni kuy léemu ni ko docteur waxee <laughs> yow doo lekk gum sa naan mar bi dem na te mar bi demagul pël yi noonu la ñuy def ñoom lekk guñ sa naan mar bi dem na te mar bi demagul <laughs> da ngay bàyyi ba mar bi dem nga soog wax mar bi dem na mais mar bu demagul nga bëgg koo yóbbu kon yu mel nii loolu lañ ciy jàngale mais kenn waxul bu ko kenn def wala wérul waaye nekkul waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te dañuy gis suñu weeru koor gi oustaz si télé yi wax dëgg fa yàlla mhm. xàmmeewuñu xadis bu wér ak bu wéru xamuñ lu yonent bi wax ak lu mu waxul mhm. ñoom daal nañ leen laaj rek ñu xool sunoonu ñu mën a tontoo mhm. suñ déggee dara ne yonent bi moo ko wax te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaadu min an naar xadis mhm. bu imaam abi hurayra mu ngi ci mhm. saxiixul muslim mhm. yonent bi nee képp ku ma fenal te tey ko mhm. yow yaa ngi daayal sa bopp sées biir mhm. safara yàlla nañ ci yàlla musal kon bu ñuy waxal yonent bi bu ñu yàq ay waxam mhm. comme am na benn waa ji ne ku wax yàq ay waxam ne di nga ko defaraan mbaa mu jëflante ko ak yow kon nag waxu yàlla ak yonent bi ku ko yàq ay mbugal mën na la cee fekk kon nag nañuy seetu waxu yonent bi xool yi mu wax ak yi nga xam ne waxuñ ko ndax loolu léegi jafeetul ci démarche xam-xam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax dina am solo jërëjëf oustaz macha allah jërëjëf macha allah joxe ndogu tamit euh, waaw loolu tamit war nañ ci wax joxe ndog yi noo ko gisee yow da nga xiif. <laughs> non joxe ndog moom wax dëgg fa yàlla mbokk yi am na solo te nañ koy nañ koy di def. Mhm. nañu jàppalante ci suñu biir ci maa borom ñi nga xam ne defal na leen xéwal. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadisu mu ngi ci mhm. nee na ittaqu naara walaw bi shiqqi tamri. nee na ragal leen safara donte ak xaaju tàndarma la maanaa xaaju tàndarma nga jox ko nit mu dog. mën na laa fekkal yow safara. kon nga gis ni ngëneel yi bëri na lool lool lool lool mhm. kon Mm-hmm. yow na yéene bi sell rek même bu dee cent franc nga jënd ci mbus tàndarma xool ko ko jox ku woor nag mm-hmm. waxuñu nag joxe ndogu comme ñu koy defee ko ñi mm-hmm. xam bu seen taal yéen doo tux tux ba réer fii naan da ngeen di yalwaan ñi waxuñu la ñooñ de ci jàkka yi wala nga xool ñi woor ci joxe ndogu képp koo xam ni wooroo te doon mu kalaf amoo benn ngant di joxe ndogu amul la benn njëriñ yaa ki yaa yaa bind ci ndox ndox ndox rek a yem maanaam képp ku mën a joxe ndogu boo ko defee ci jàkka yi wax dëgg fa yàlla di nga am ak payoor bi kon nag nañuy joxe ndogu ci keem lu ñu am ak kéem lu ñu tane suñu morom. ndax tey ji koor dafa ñëw xamal ni am na ñoo xam ñu ngi toog toute la journée duñu lekk duñ naan kon ki nga xam ni toog na rek borom alal bi toog na suba ba ngoon lekkul naanu mm-hmm. dina fàttali ne ah am na ñoo xam ni journée mm-hmm. mën nañ toog ñàkk ko kon kooku dina deltu ginnaaw mën leen jàppale te loolu dafa am solo mbokk yi mm-hmm. te yéen tamit képp ku nit di nga am lu tolloog yiw ci kooram te du jot ak sa koor dara du jot ak moom ci kooram dara kon yiw yi mel ni nañ ko jéem a di profité di ko jéem a di njëkkante kazaalika dina am solo lool beneen bi tam cadre xëdd Mhm. nañuy xëdd wax dëgg mhm. fa yàlla yéen di ne te saxaru fa inna fi saxur baraka mhm. dee leen xëdd ndax ci xëdd dafa am barke teyal ñenn ñi teyal ak bañ a yeewu fajar rek moo tax mënumaa xëdd mais nga lekk benn tàndarma loolu kay xëdd la maanaam boo xaaju tàndarma boo yéene woon xëdd sax ab xëdd nga li ñuy bañ kay li ñuy bañ rek mooy nga bañ a lekk dara mbaa bañ a naan dara nekkul dañ koy bañ sax mais sunna la boo xam ne boo ko defee ngëneel moo ci ne dafa am barke barke du jëm waaye ci jëm jum ñu xam ko kon nag nañ koy def rek comme yonent bee ko digle ñu nag ngay lekk mel ni halpulaar topp cere yeeg xaaxo yeeg yaakaar banaana ñi naan la am na ñoo xam noonu la ñuy rayee nit ñi banaana boo ko lekkee doo xiif koor boo lekkoon nag sax da ngay xiif kon yooyu bu ñu bu ñu di yóbbu daal nañuy xëdd ci keem nuñ ko mënee rek mu bañ ñoo sonal incha allah. moom tey moom tey moom paraatu ginaar lañ ma tegal xëdd mais ñaari fourchette rek laa ci lekk <laughs> naan naan kafe wax dëgg yàlla mënumaa xëdd ah. mënumaa xëdd mënumaa reer guddi. man su ma xasee ba ndogu pare naa si lekk mburu mburu mi sax du jeex man dafa am noo xam ne jagleel la ko waaye yàlla moo ma ko defal bokkuma ak yéen sama lekk bëriwul ah ah yow xam nga ko ci yow xamee nga ci mbaxal saalum bi sax waaw waaw ngi noonu waaw <laughs> macha allah mi ngi noonu émission bi am na solo réponse yi am na solo question yi am na solo xam naa dañuy jox oustaz mu tàggatoo ñiy tàggatoo ñu yeewi nit ñi incha allah. kon bu defee nag yaa ngi doon wax ci mbaxalu saalum bi nu éviter nga xëddee ko rek. Ah. ku fi jum ba xëddee mbaxal saalum mbaa maafe barki alxuraan ni nga ko rëccu mbaxal saalum moom saalum saalum bu yàlla xiir ba xëddee mbaxal saalum bu dog jotee di nga dogoo seen o xam nga seen o boo koy ndogoo di faatu mbaxal saalum gerte gi bu commencé surmonter ak maafa gi nga commencé xër ñeñ ñi da ngay yendoo naan ndox du la baax kon nag koor gi lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla nangul bépp njumte buñ ci def yàlla nañ ko yàlla jéggal ba pare yàlla may ñu kattan ñu yéggali ko ci jàmm yi di joxe laay biir tamit yàlla bu ñu jàmmarloog téyeer yi téyeer yi dee leen wax li ngeen mën dee leen wax loo leen attan ba leen di encaisser ñaw jàmbur jël seen i xaalis tëj ñaw yi ba pare dem seen dëkk loolu jekkul jaar daa am na téyeer bu ñu ci reyoon kon yooyu war naa mën a ñàkk kon loo mënul bu ko def maanaam loo tegul loo attanul rek kazaalika yéen clients yi ba leen bàyyi ba dernier temps mu des trois jours ngay waaw waa ji xam nga ni carrément du mën a pare nga naan ko noonu ñëwal rek sa heure bu baax na léegi yow boo ñëwee jours yi parewul nga ñëw bëgg koo te ah. war naa mën a ñàkk nañuy def loo xam ne mën nañ ko ba pare lépp lu ñu digee tamit nañ ko jéem a matale di ñaan yàlla ñu jàmm. man moom comme ni ngeen ko waxee man sama tailleur bokk si Papa Laye ndax damay toog ba mu des ay trois jours ma yóbbul ko Papa Laye maa ngi lay nuyu te mu nekk fii bëggal tàppe Mhm, dafa maandu macha allah lu mu ñëwul baaxul tey nag damay gërëm Tafanta <laughs> damay gërëm bi moom moo fi jaar Tafanta merci beaucoup rafet na kontaan na di gërëm ñëpp nag oustaz macha allah. <laughs> na naa la fa yóbbu naa yóbbu di di gërëm oustaz yi Amar ak oustaz ak Habsa macha allah émission bi am na solo bu baax jàngat. jàng naa si yéen tamit jàng ngeen si donc di leen joxaat beneen ndox daje incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jotaay bii nii yàlla na bokk si jotaay yi nga xamante ne malaaka bi da koy filmer yéeg si kaw jox ko suñu borom ci euh, kaw asamaan di leen wax heure bu jotee ngeen bàyyi théâtre yu ñàkk xorom yi ngeen seetaan te ngeen seetaan théâtre baytul atfal leen la sagesse am na baytul atfal ramadan am na da leen di jàngal lu ba da leen di jàngal lu bari bari te en plus du yàq seen doom yi moo gën ngeen nekk di seetaan ñi nga xamante ne dañ leen di retaan loo te amoo leen benn njariñ te 30 minutes dafa cher 30 minutes mën nga see mën euh, sunnay julli mën nga see mën sunnay koor waaw lu nekk ak leneen ak leneen xam-xam yi daal bari nañ fi bàyyi leen jël seen temps di ko yàq si loo xamante ne nii dara jaru ko maa ngi leen nuyu yéen salaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah am na solo comme ni mu ko waxee di yéen seetaan Beth Ot Fall da bàyyi ñàkk xorom yi amul solo day yàq seen temps yéen a ngi yàq seen temps dafa cher temps dafa cher profiter du temps libre waaw moo tax yonent bi nit profiter du temps libre avant l'occupation comprendre nga kon nag seen temps bi jël leen ko jox ko ñu am am solo di leen woo nag si le 16 avril bi incha allah Beth Ot Fall moo ko woote comme d'habitude Dakar Buzz ñoo ñëw couvrir ko incha allah ñoom Omar sama caméraman bi nga xam ni moom dafa bari tiitar quoi macha allah mi ngi noonu waaw di sant sama sama ñëwkat bi encore une fois plus mooy Anta anta moom moo may ñawal di ma jaay ay parfum ma may ay lépp la may may ay karaaf fi ne nii sama café su ma demee fekk ko kër ga mu tegal ma ko foofu macha allah am na yeneen tissu yoo xam ne sax fi ne nii mi ngi koy ñëw mooy an nuur xaw ma nu tudd noonu boobu yóbbu na ko ci tailleur pour mu ñawal ma ko di wax ñi nga xamante ni bii tamit euh, macha allah seen xol euh, rafet na lool ci baytul atfal ñu ngi jàpp baytul atfal topp baytul atfal nisa baytul atfal di leen woo ci journée boobu bu kenn des incha allah di jox dig daje incha allah beneen yoon ci beneen émission asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu